asalaamualeykum wa Sénégal man Ansoumana Dione njiiteel kuréel gi toppatoo ak ak yelleef ñu amee feebaru xel may ñëw tey di waxtaan ak yéen ci mbirum wér yaram fan yi ku nekk gis na wér yaram bi ni mu yëngatoo ginnaaw ba lu xewee la xew ci Louga ñu gis ndaw su doon mucc far ndeysaan yàlla jël bakkanam ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana jaahi seydina Muhammad ci barke weeru koor wi may nag profito woo kilifa yi jiital ci ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr moom la yàlla des mu nekk ci bopp ministère de la santé et de l'action sociale tey réew mi yëpp gis nañu secteur bi ni ko coo toppee ñëpp ngi wax médecin yi sage femme yi infirmier yi aide infirmier yi maanaam acteur de santé yi ñëpp rafetlu seen liggéey liggéey bu mucc ayib la ñuy nekkee di ko def waaye bu dogal ñëwee benn rëq-rëq am ngalawaay nañu ànd ak suñ xel te bañ a topp suñ xol jàpp nañu ay sage-femme tëj ci kaso bi dàq nañu directeur def nañu def nañu def nañu waaye loolu yépp nag nañu delloo ci sun xel te xam ne ay nit ñu ngi liggéey ci ay conditions yu doy fii ci biir réew mi ci àll bi ay nit a ngi def ay liggéey yu mucc ayib ci condition yu métti ay sage femme yoo xam ni amuñu contrat amuñu euh, nekkuñu fonction publique ay infirmier seen lim bari na ñuy sonn guddi ak bëcëg ci askan wi foo dem ci biir réew mi nag kon tey dafay jaadu bu luy xewee sénégalais bu nekk tey ñëpp a ngi ŋàññi ñi amee euh, euh, euh, ñii di liggéey ci ci mbirum wér-gu-yaram dëgg la dëgg la lii xew-xew na waaye lan moo ko waral nañ ko gëstu su fekkente ne hôpitaux yi amuñu personnel bu doy amuñu jumtuwaay bu doy amuñu xaalis bu doy lu mel nii mënul ñàkk kon tey dama jàpp ne dafa jot kilifa yi ministre ab Diouf Sarr mu boole njabootam ñu nekk benn bennoo ci biir acteur de santé yi lu war la dafa jot ministère de la santé rek ci biir ministère bi nit ñi jubawuñu nit ñi jàppantewuñu ñu ngay xiiroo ñi ngay ŋaayoo waaw kon tey lu mel ni su xewee ngalla nañu nekk benn fóot xol yi jëfandikoo xel yi ngir njariñal askan wi ndaxte lii kenn xamul fal la jëmee suñu réew mii en tout cas du Sénégal moo tax may wax président Macky Sall ñëpp rafetlu taxawaayam yéenam ci mbirum wér yaram loolu il faut wax ko président Macky Sall ku ne xam ne yéenam ci wàllu wér yaram donte ne lu bare ngi sooxe nag lu baree ngi sooxe ci mbirum wér-gu-yaram lu baree ngi sooxe waaye bu ñu fàtte njàmbaar yi nga xam ni ñoo nekk ci hôpitaux yi nekk ci centre de santé nekk ci poste de santé ay ay sage femme yu bëgg seen liggéey ay infirmier yu bëgg bëgg seen liggéey ay médecin yu bëgg seen liggéey di def seen kéem kàttan tey damay ñaan président Macky Sall mu dalal situation bi mu dalal situation bi ñooñu jàpp Louga ñu bàyyi leen te ñu xool feebar bi fan la nekk ndaxte wir gi yaram ci boppam moom moo feebar xanaa su fekkente ne ku sàgganee ñu dàq la ñu tëj la waaw ñi amee feebaru xel nekk ci mbedd mi ñi amee feebaru xel di ci mbedd mi te kenn toppatoo leen ñuy faatu ci mbedd mi loolu càggante gënu ko rëy loolu yëpp nañ ko boole toog waxtaan xam ne jot na jot na tey mbirum wérgu yaram ñu waxtaane ko kilifa yi koy kilifa yi ko war a yore directeur yi ko war a yore bu ci nekk ñu saytu ko xam ne lii askan bi rek la ñu ni neen lañu li xew Louga metti na waaye mooy xew daanaka foo dem ci hôpitaux yi hôpitaux yi nekk ci biir réew mi daanaka yépp a feebar fekk na booba ñu bari nekk ci système bi dara yitulu leen lu dul am alal am koom-koom te dama jàpp ne koom-koom bi gën a rëy alal bi gën a rëy mooy jëmmi doomu aadama fexe ba doomu aadama bi mu nekk ci kaaraange nekk am am wér-gu-yaram kon tey dafay jaadu ñu ànd ak suñ xel may woo Abdoulaye Diouf Sarr may woo Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy ministre de la santé de la l'action sociale na boole njaboot gi yépp uuf jàppale dimbale dooleel bu ko defee askan bi mën leen a taxaw ci seen wàllu wér yaram les sénégalais yi fajuwuñu sénégalais yi fajuwuñu li xew Louga moo xew fépp ci réew mi ci wàllu yépp nag boo jëlee ñu am feebaru xel insuffisant rénaux yi ci wàllu jabet yi ci wàllu ñi am feebaru hémophilie foo lamb rek benn la kon tey dafay jot ñu bàyyi xiiroo gi ak ngayo gi ndaxte lii kenn xamul fa la ñu jëmee président Macky Sall la jël dossier bi amee main te dalal mbir yi dalal mbir yi ñu libéré ñooñu nga xam te ni ñoom la ñu jàpp ñu waxtaan ñu waxtaan ñun acte de santé ñu waxtaan ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi ñu waxtaan xool mbir yi fan la sooxee lii bu amee dafay nekk occasion ñu profité ci xam ne kat suñu système de santé moo jagul waaw nañ ko wax tabax ay hôpitaux yu bees baax na waaye hôpitaux yi nga xam ne ñoo fi nekk ñu suuxat leen xoolal hôpital psychiatrique bu Thiaroye fees na dañuy forcer meladi pour ñu génn force ay malade pour ñu génn nga dem feneen ak feneen ak feneen loolu moo fa nekk wérgu yaram daal jot na pour ñu jox ko gëdd mu nekk priorité mu nekk une priorité national waaye ci biir xiiro ak ngaayoo bii déedéet musiba rek moo ñu dal nañu def ndànk lii kenn xamul fan la jëm médecins yi di grève sages-femmes yi di grève ñëpp di grève waa mais fan lañ jëm secteur de la santé moomu euh, attanul coow lu mel nii nañ ko dalal dalal bi nag ci gën a am intérêt mooy njiit réew mi Macky Sall mooy le ministre de la santé et de l'action sociale ministère de la santé et de l'action sociale pour nga yor ko il faut que nga laa biir il faut ngay yaatu il faut nga yaatu dënd il faut sa say say mbag mu yaatu sama xel dem na ci Issa Mbaye Samb fa Issa Mbaye Samb yal na ko yàlla xare àjjana situation yi mel nii su amoon dafay taxaw xam ne kii ku mën a déglu la ku am yërmande la ku bëgg askan bi nekk ci jàmm la yenn yi boo toppee sa xol rek musiba am Abdoulaye Diouf Sarr tey nag yaa fi nekk yow yaa fi nekk jëlal sa njaboot nga waxtaan ak ñoom ngeen nekk benn.